ba ñu ma benn rôle bi ma jox ma joué ko. joué naa fi dof. joué naa fi rôle mhm. caga. Mhm. te yaakaar naa ne joué naa boo xamante ne ni. Mhm. pour def nit ku bon te yaakaar naa milliard loolu ci gën a metti. boo xasee ba joué rôle yooyu amatoo looy bañ ci milieu cinéma. dëgg la dëgg la man nag juste dama opté pour def milieu cinéma ak art bi laa bëgg dama ko bëgg. donc man aw ma ne lii laay def du ma joué lii wala du ma def non non Omas xaaj ak seen. mais mais mais ci rôle yi yaa ngi xool nag loo xam ne culture du Sénégal la ak du Sénégal. waaw waaw maa ngi koy sóor. waaw ça veut dire booy wax culture du Sénégal yaakaar naa ñu lu ñu joué suñu culture rek la ñuy def parce que des fois dinañu wane dara woon ñu tourné dara woon ñu joué dara ñu ne lu tax ñu def loolu. et pourtant loolu la ñuy dund suñu biir kër yi. tey bu ñu la joxoon rôle ne la Marème xale bu góor bi ci rôle bi da ngeen war a fóonante. waa loolu nag garaaw na. yow. daw na doole <laughs> loolu garaaw na mais fóon loolu garaaw na ak biis dafa am waaw non waxuma bis fóonante non fóonante <laughs> ma ko tas sama sëy ah non non damay laajte rek waaye loolu caga ak ak loolu baat bi kay yooyu gën a garaaw moo wax loolu fóonante <laughs> non xam nga la xam nga fóonante action la da ngay def da ngay def action la bu ko bu xaas bi tegoo laaj ko ma jar ko ma def xaalis sa tax ngay fóonante wër na yàlla buñ ma tegalee xaas bi table yi ma joué li ma joué ko ah, waaye nag bu ma koy def day fekk mu am